Amadou Gaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax waa Rewmi FM. Amadou fa, nga jiite euh, fédération nationale des boulangers du Sénégal apparemment bras de fer bi mi ngi woy di continuer ci diggante autorités yi ak tamit euh, secteur boulangerie bi euh, lan moo xew exactement. waaw maa ngi lay nuyu di am mbégte di ñëwaat encore si rajo bi di expliquer askan bi jafe-jafe yu nekk parce que boo xoolee. FNBS ak RBS dañoo toogoon le 17 octobre 2023 ñu def benn conférence de presse pour waxtaan ak askan bi ak ak alerter autorités yi ñu leen daal ñun dund bi ñu nekkee nii métti am levure améliorant yokk na plus de cinquante pour cent gasoil bi yokk yokk état bi yokk na ko courant bi yokk ngeen ko xorom si yokk nañ ko salaire yokk nañ ko waaye jafe-jafe yooyu yëpp su am na te yéen yéen yéen yéen ko def ba pare ngeen ni Euh, dañoo nekk lu ñuy wax régime homologation yéen boulanger yi am lañ sañ-sañ vraiment yokk dara si mbir mi ba pare aussi état bi jël ay arrêté ak décret di ko di ko def di ko xaatim ba pare du ko respecté mooy décret vingt deux soixante dix sept nga xam ne depuis deux mille dix neuf lañ ko sañoon maanaam ay jaay mburu si boutique yi livraison yi hygiène yi maanaam esprit bi yëpp yàq lañ ko même ouverture boulangerie yi léegi euh, dañuy def lu leen neex maanaam dañuy xool ko neex rek amoo euh, distance bu respecté bi ñu defal la ay dérogation yooyu yëpp ni du commerce di ko def ñu koy toog di ko titan maanaam daal dañoo jël boulanger comme morso ñu jàpp ne ñun wuñ dara te la ñu waxtaanee seen bureau yi euh, ba pare tënkuñu mooy homologation parce que mënoo ñëw nga ne da nga homologué mburu ba pare yeneen yi koy def yëpp homologué woo ko maanaam mënoo contrôler prix yooyu boo nee mburu mi maa koy téye maa joxe njëkk li dama yaakaar ni kon même ndox mi ak courant bi ñuy liggéey wala nga mën a kon te njëkk loolu loolu def ko loolu coono boobu yëpp ba mu amee ah ñun boulanger ñu ni kon ñu sonn nañu te gis nañu boulanger yaa ngi di tëj tëj bi bu ëpp loolu mënu continuer di wéy ñu ni kon nañu defaat beneen réunion pour ni léegi aller à la beneen beneen vitesse supérieure parce que dañoo jàpp ni suñu revendication yooyu juróom la maanaam lañ ni il faut ñu yokk njëgu mburu mi su dee nag état bi nee na mënu ko yokk parce que dañuy système homologation kon moom la mu yokk la mu fexe ba yokk na ko wàññi waat delluwaat njëg fa mu nekkoon maanaam mooy levure bi améliorant bi ak courant ba su ko defee coow du amati wala ñu ni ko TVA bi nga xam ne mi ngi si courant bi jàpp nañu loolu mën nga ko wàññi mën nga ko dindi si courant yi nga xam ne si ba pare jàpp nañu aussi ñun boulanger yi nga xam ne dañuy def mburu dugub mburu mboq pour askan bi am nañ jafe-jafe pour continuer ko ndaxte gouvernement bi dafa ni euh, benn industrie bu demee jënd dugub si mbéykat bi su ko walee bu bu dee da ko jaay boulanger da ciy defaat dix pour cent TVA ñu loolu moom day yokkaat njëg li rek njëg li yokk na ba pare kay bu ko ñu koy ñëw di ko yokkaat kon loolu ñun loon loolu bu en toogoo seen bureau benn fonctionnaire rek boo toogoon mooy ministre finance bi naa toog biiram xaatim benn kayit bu ndaw rek ni léegi loolu suspend naa ko donc loolu yomb na pour jàppale vraiment askan bi ak jàppale boulanger yi mais loolu def ñu ko kon loolu lu muy wund daal mooy que autorités yi ñu suñu revendication fulaalu leen ñoru leen xëy na politique politique moo la ñor ñu xam ñun xam nañ ni boulanger yi askan bi sonn nañu ndaxte niveau de vie bi dafa dafa dafa metti boo xoolee askan bi lépp a cher yàpp dugub euh, meew dëwlin lépp yokk na waaye loolu nag loolu lañ si jàngatee ñun tamit ay sénégalais lañu kon si lañ daan liggéey di si am dara lañ daan jëndee ceeb ak dugub parce que dañu yore kër comme ñëpp donc su loolu yokkee te ñun la ñuy liggéey yokkul kon yaakaar naa ne jafe la ñuy dina dem ñu ni kon ministère du commerce su bëggee jàmm ministère du commerce ak ministère des finances su bëggee jàmm nañu ñëw jël ay xaatim pour wàññi affaire TVA bi si courant bi ñoo waxtaan ak boulanger pour ñu trouver solution parce que askan bi moo tax ñu ñu ñu nekk fi sagam loolu ñoom nee nañ ñoom du def loolu ñun déployer loolu neexuñ ñun ndaxte ñëw mënoo ñëw nga ne ñii nga jite leen ba pare fulaaloo leen mais daa ngi dem defi leneen ñu kon boulanger ñu ni kon mënuñu toog di seetaan loolu kon faaw ñu taxaw maanaam wane suñu bopp ndaxte ñoom dañ jàpp ne ñun tek tekkuñ dara kon ñun danañ wane ni si dëkk bi lañ bokk mu nekkat beneen message si yeneen askan yi nga xam ni Canada yi nga xam ne dañu bëgg réew mi depuis trente ans coow mburu mi ngi fii am Sénégal waaye ñu xam ne depuis trente ans njëgu mburu musul yokk maanaam njëgu farine ay onze mille lan jar ñu mburu mi doon jar cent trente cinq francs en deux mille un tey mi ngi ci cent quinze waaye pois bi deux cent dix grammes la boobu ñu ngi doon jar deux cent trente cinq grammes donc wàññi nañ poids bi donc pour wane ne rek mburu mu musu jóg si affaire bi moo tax ñu ne daal sax lii dafa doy boo xoolee nii benn candidat sax waxul si affaire mburu ça veut dire que ñi ñi kenn leen ñu ne est ce que kon dañ leen continuer di sacrifier boo déglu kenn waxu sax si waxu waxu mburu mi te pourtant nag secteur boo xam ni mi ngi def trois pour cent si PIB maanaam si nga fa réew mi onze millions de baguettes mburu la ñuy jox askan bi par jour six cent milliards CFA na dugg si si gafa euh, si chiffre d'affaires man kooku secteur boobu nga ne xamu leen ko donc ñi bëgg réew mi xamuñu ko ñi nekk si réew mi xamuñu ko ñun nag kon dañoo xam suñu bopp ñu ne kon nañ taxaw moo tax parce que yéen nañ taxaw ñaari fan si weeru janvier bi day nekk ñaari fan yu continuer euh, ba pare defar ko si mois de février bi bañ ñu sax bi suñu yi ñu taxaw pour dire que rek boulanger yi vraiment démb salle boo xam ni deux cent personnes la waroon jël. Mm. ñu fekk fa trois trois cent personnes mu nekkoon mbégte si ñun ndax mun nañ ci teew. Mm. cette euh, fois-ci daal le combat va ak santé bi ban façon taxaw maanaam sénégalais yi du ñu am si diir boobu mburu wala grève bi naka lay demee exactement. si léegi xam nga ñun moomuñu boulanger yëpp Sénégal ñun dañoo yore association rek ñaari association yi la mais jàpp nañ ne quatre-vingt pour cent boulanger si ñun lañ nekk. kon ça veut bis boobu mburu dana manqué ñaari fan yooyu mburu dana manqué si réew mi loolu day wan ne rek am na lu ñu metti mais naa la war biral ni ndakaaru mën mm. nga am cinquante pour cent yoo xam ne duñ ko liggéey incha allah mais région yu bëri cent pour cent dinañ taxaw loolu moom mooy vraiment maanaam taxaw ñaari fan buñ taxaw ñaari fan évalué waat euh, fin janvier ñu duwaat yeneen ñaari fan début février ñu duwaat yeneen ñaari fan euh, ba ba doon moom jeex daal ba ñu xam daal woon nañu waaye nag diggante bi ak quinze su dee woon nañu. Mhm. waxtaan ah xëy na loolu mbir mën na saafara mais gëw ñu def ko ndax na ñoom gëm nañ ni ñun duñ dara. wax ci foofu la daal. waaw léegi xam nañ leen bu baax ñun. léegi da ngeen envisager Amadou Gueye yokk mburu mi wala wala wala nekkagoo leen foofu. si non moo tax dem ne la boo dégloo dem na la ñun mun ñoo yokk mburu dañoo demandé ñu yokkal ñu mburu d'accord vous êtes moom mhm. homologation lañ nekk. homologation lañ nekk mu ñu ko yokk waaye nag moom mi nga xam ne moo yokk yeneen njëg yi na ko na ko na ko dindi boobaa kenn wax wax yokk mburu su dindi woon loolu rek lam ñu lam ñu teg maanaam levure beeg améliorant beeg courant bi ba mu teg suñu kaw su ko wàcce woon suñu kaw rek kenn du wax di waxu yokk mburu kon coow mburu day jeex. léegi kon loolu. Mhm. gëm nañ ni benn xaatim benn bis mën nañ ko déglee. léegi est-ce que jafe-jafe boulanger yi euh, invasion russe bi am ca Ukraine euh, moo ko waral wala bokk na si li ko waral wala. déedéet ndaxte boo xoolee njëgu farine bi état bi da ko maîtriser maanaam da ko def subvention ba ñëwee leen dong la ñuy xaw a ragal nag mooy ñoom accord bi ñu defoon ak yi mooy le trente et un bi deux mille vingt trois cinq pour yi nga xam ne moom la meññee waroon fay mën naa jeex. su dee reconduire ko maanaam su ko defaat ko mu continué waat fii ak ay mois mu ñëwee nag voilà bu leen neexee ñoom tamit am nañu sañ yokk boobaa mais fi mu toll nii yokk mu nekk si farine boobu bis bu mu ñëwee nag yokkuwaatoon farine bi mais yaakaar naa ne euh, suñu problème day gën a gën a tar te boobaa nag bu la waxee dañuy gën a jéngwaat nag boobaa boobaa. Mhm. est-ce que aussi problème mu courant bi Amadou réglé na parce que doon ngeen jàmbat aussi facture courant yu cher yi te gis nañ récemment euh, Sénélec euh, dafa daal di indi grille tarifaire bu bees euh, surtout concernant oyofal bi naka ngeen apprécier loolu est-ce que wàññi na jafe-jafe yi waaw wala déet. moo wàññi bu baax pour boulangers yi nga xam ne ñu nekk si oyofal waaye boulangers yu bëri nekkuñu si oyofal facture la ñu loolu da lay wan ni rek Sénégal bu bëggee régler gouvernement bi su bëggee régler benn problème benn fan mu régler ko lii mooy wan ñoom buñ ko bëggoon régler yi dañ ko régler mais nag ñu bëri facture la ñu jot moo tax si suñu revendication dañ ni kon ñoom mën nañu toog seen kër xaatim benn kayit rëy ni facture courant boulanger yi TVA ba si yokk may lañ ko may nañ maanaam suspend nañ ko mais coow li jeex noonu la ñu dafa woyee fa nañ ko defal noonu nañ defal woyofal bi nañ ko defal boulanger yi nga xam ne ñu ngi jafe-jafe coow lu jeex mais bëgguñu ko mënuñu ko jéemuñu ko ñun nag aussi ñoo yore suñu alal ñoo yore suñu njaboot di ko dundal ñoo yore suñu emploi yoo xam ne bëgg nañu mu toog fi bu ñu mu yàqu kon nag du ñu nangu ku ñuy kayit kayit loo loolu moom jeex na fi. voilà kon Amadou Gaye euh, en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci encore maa ngi leen di sant bu baax a baax man tamit. ñuy fàttali ne Amadou Gueye yow yaa nekk président bu fédération nationale des boulangers du Sénégal merci ci la disponibilité. ci la disponibilité.